ñëpp ñi ngi dégg coow bi am ci dëkk bi dafa am benn projet bu fi xew boo xam ne banque mondiale mu koy indi muy projet trente milliards ñu recensé ces sept mille personnes ci territoire Sénégal ndax dañu leen bëgg a pour ñu am ay diplôme d'état au niveau du au niveau du CAP bi loolu amee mbas mi am ñu ne sept mille personnes yooyu dañ leen di envoyé kenn ku nekk cent cinquante mille ñu jël fa deux milliards defar ci ay masques defar ci ay gel mais kenn jotagul ci deux milliards yooyu dara ñun ñu taxaw ne président am na yeneen artisans yu des du ñooñu rek mu génne trente cinq milliards trente cinq milliards yi nag bi mu ko génnee dañu ne na ñëpp inscrire bi ñu inscrire en ligne ñun def nañ conférence de presse wax ni président d'accord ñu ci inscription en ligne bi ndax ñëpp jox nañ leen xaalis ñu séddoo ko te jaaruñu inscription en ligne waaye loolu defe naa ni président dégg na ko ndax gouverneur woote na ci réunion képp koo xam ni inscrit doon nga en ligne delloo nañ la ci organisation professionnelle ñuy vérifier ndax loolu am na wala amul mais ministre dafa génn daal di ne kenn ku nekk jot nga sa cent cinquante mille ñuy wax ne ñun Revaas artisan yëpp amul kenn koo xamante ni jot nga cent cinquante mille ñi ngi alerté waat nag président de la république di wax ni ñun am nañ loo xamante ni daf ñoo metti ci artisanal ndax artisanal dafa ëmb bay artisanal dafa ëmb pêche artisanal dafa ëmb sàmm ndax boo nee mbay boo koy commencé artisanal ngay wax machine boo koy terminer artisanal ngay wax boo nee napp ci gaal gi ba ci mbaal mi ba ci moteur bi lépp artisanal ngay wax boo foo ci kooroo yëpp boo dugg artisanal moo wax lan moo tax artisanal gën a néew bi budget mooy que ni ñu ngi defaat appel nag ñi ngi wax président de la république COPAS COPAS ndax bi ma waxee REVAS ba pare dafa am COPAS artisan yëpp léegi dafa am fu ñu tënku pour taxaw jaamaarloog lépp luy artisanal loo xam ni dafay xew fii waaw ta dootuñu bàyyi dara te ci kanam mu ngi ñëw fii ak juróomi weer di ngeen gis réaction COPAS fii ci réew mi artisanal dina fa doxe ko par force